gis nañ kër yi gis nañ gis nañ ni ngeen ñi ni ngeen ñi ni ngeen ñi taxaw bu baax a baax a baax ci antenne bi saa nuyu naa la c'est fay naa la jàmbaar yi gaawaan la gaawaan gaawaan rek ñaan yàlla may rek diis ci kan ci la da ah, non ci di ji dëgër ko gën di ji dëgër ko gën barki Serigne Bamba. Lac de Guiers du ñëw eh? non du ñëw ay bu ñëwee dañuy ñu na yàlla man mu ñëw. Ah, bu ñëwee luy ñëwee ñëpp reer yi. Ah? mbër mi mi ngi ñëw léegi mu ngi nga gis ko egg seegul fii nag waaw ah. waaw non mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci dëkk bi moom non mi ngi ci dëkk bi rek dañu làmb rek mi ngi ci dëkk bi ah. waaw nañ jàpp daal làmb du rabbi te noonu lay demee ah. waaw tey saa tey ngeen tey ngeen jommi barki yonent ah. ngeen gis lu doy waar billahi wallahi non <laughs> jaru ko <laughs> jaru ngeen jommi barki alxuraan tey wóor na Serigne Saliou stade bi tey mu wàcc barke yonent bi tey tey ngeen dégg dëgg billaay wallaay ok kooku ngeen gis kenn la ci sa waay nii naa la dafa mel ni yow jekk nga de songa sa prison bay waay nga lay saat waaw gis nga noonu la demee de tur bi de waaw mbër mi ngi si biir mi si biir waaw mi ngi fi de mi de non mi de <laughs> mi de Ya, Siteu ji Siteu la dëggante la ko mais ko daan mu ko si kaw. Siteu daana nga sax mu ngi si kaw ñun roi la du daan la barke Bamba. ah bon maa la ko wax de. combat bi du non combat bu neex lay doon bu barke Bamba ëpp na Siteu yaram rek mais ëpp ko doole de. non déggoo li ma lax moom moo ne carrément xam nga moom ñëpp xam nañ ne du song. Ah. moom moo ne day song bu songee làmb ji day gaaw day ñëw rek daal incha allah. mbokk mi siyaar naa la. siyaar bu wér gaa maa ngi dolli siyaar. tur beeg sant bi. sëñ Modou. sëñ Modou tey tey ñu fekk tey fi nga xam ne moom mooy seewu Siteu tey jii. waaw mi tey nan la waajee combat. mbër mi waaj nañ ko de si lépp kay. waaj nañ ko si lépp. billaahi waajal na waa ay mbokkam nañ ko ñu ne waa jàmm gan waajal nañ ko. su la non diisul Lac de Guiers gars yi volume ak doole la ñuy jaawale ëppul booy bi doole de te daa ko bëre tamit booy bëre kenn la de non lii moom dafa yàgg ñu temps mbapat ba tey la ñu nag moom bokk sëriñ boo defandoo lépp billaahi te koo xam ne bu bëree mu neex bu tuusee mu neex tey lan la ñuy xaar ci tuus tey lan la war a tuus. xaar leen lépp baak sëñ Bamba lépp kay. Ah. lii la tey jii ambiance lépp lay ambiance tey lépp ah. bëre si fulla di woo ñëpp nag si non violence xam nga rek waaw mooy loolu yar ak waaw di yowoo lépp lancé loolu xam nga rek gars yi sax ba dem stade ñun loolu lañ lancé parce que sëñ Bam loolee la ñuy lancé waaw non violence jaajëf moom nee na non violence seen woote sangu ba set sol sa sol sa bu rafet xëy sa parfum dem stade nam loolu la lañuy lancé fi nii ba léegi ñu ngi seew si te ba léegi nii am kaan dem ci barrière moo wax ak moo bi sama gars cher na le leen. ngi xaar yow. ñu xaar gay bun lañ teg bun. waaw. bun ba fii Siteu rek. gay. la dëggee tey noo gisee ko rek. mu delu rek. waaw mu delu rek. waaw. ko day xaar la dëgg day xaar waaw waaw day xaar nee la dëgg day xaar ñu ngeen day sant dañ ko jigéen ba buun ñoo supporté si ki nga xam ne moom mooy Siteu yàlla nañ ma fi yaa baag mais li ma jaaxal omix ceeb dafa teel a pare ceebu yàpp yi ceebu yàpp yi dafa teel a pare dafa nana teel a dem làmb ja kon ah ana baabaas ah wala ma baabaas waay te ceeb yaa ngi nii dafa teel a pare te dafa na teel teel dem làmb ja kon tey ah day teel dem moom lañ bëgg teel dem incha allahu rabi yàlla may ñu ndam ndam lu seddu guy mbër maa ngi fi mbër kenn du ko gis mbër maa ngi fi mbër ñu ko war a gis ñu ngi koy gis mbër maa ngi fi bëgg nañoo teel a dem teel a bëre teel a daan teel a ñibbi jàmm rek am ndam lu seddu guy ki ndam li jig yàlla na ko yàlla may sox bu seddu guy waaw ah, non violence moom dañ koy wax supporter yëpp muy supporter Cité yeeg Modou Lo ak Ama Baldé képp ku ci ñu ngi lay wax non violence. parce que lii ñoom ñoo ciy fayeeku ñun fayeekuñ ci ñun liñ man mooy jënd ticket loué oto paas di leen supporter ñoom ñoo ciy fayeeku kon ñu li ñu war mooy ànd ak dal ak yar ak teggin lii fola rek man ngaa ànd ak nit mu falal la dégg nga falal ci da ngeen toog di waxtaan kenn daan ñu ñibbi dañuy fo di rek yaa ngi lii fola rek jëwrin mais di buddi ay 16 ak sànni xeer mën naa ñàkk li fa la rek li bu yàqoo ñëpp la yàqu dañuy fo rek bu ñek mag ñi dañu xaar ba dimanche and ak seen doom ak seen jabot sa soxna and dem estat tok ya may deg jëru ñu dañuy fo rek li fa la seen xaar ñu xaar ci tan tay gi dina teel dem estat dégg ma de bu neexee yàlla dinañ teel dem inshallah rabbi ki ndam na jik yalla ko yalla may bu dee ñun la jik yalla ko yalla may bu dee mom la jik yalla ko yalla may lepp senegal la c'est nous dans nous jërëjëf jëwriñ rafet na wax gi rafet na ndeysaan ah daa mel ni daa ni ceeb bi ñëw na de di ko doon tegal benn plat ñu daat koy kii ceeb bi de ceeb waaye man est-ce que man war naa lekk ci ceeb bu mbëri ceeb bi ñëw na de ceeb bi ñëw na de ana Babaas maa waaw waaw mbir mi waajal ni mu daan waajee rek waaw parce que boo xoolee lamb ji lamb dëkk la ko ni ma ko waxee neexul lamb si taal la dëgg dëkk te ñun deret Diamaguène mooy daw suñu yaram te lamb ji boo xoolee mobilisation nga xam ne Siteu wéetu ci ndax ñu bëri dañu Lac de Guiers moomun moo ëpp doole waaye Siteu a gën a féete xale waaw te bu lamb ja Lac de laa koy ñaan lépp lu ma waxoon ci signature na ko confirmé tey ñoo déggoo ma de Lac de Guiers ñu ñëpp xam nañu combat bi yëpp day teg lewal teg deuxième troisième bi sax amateur des fois duñ ko xaar dañuy ñibbi ñoo déggoo ma ne ñaata nit la ah xool ñaar nil la am Lac de Guiers ñaar nil la am Lac de Guiers ay 3 nil moog Eumeu Sène ba mu ko daan ba ñëwaatee daanul Eumeu Sène lamb jël dafa niil sans verdict la ko daan ponkal mu toll ni Lac de Guiers dañu waxante dëgg ponkal mu toll ni Lac de Guiers di dajeeg ay raqam du song du taxaw day taxaw teg level teg deux heures amaante am ñoo xam dañ naan du fa xaar troisième bi dañuy ñibbi. da xaaroo day dem. non déggoo de Siteu ni mu daan lay ñun ñoo ñëw amateur na cim lamb ji musul am. combat Siteu musul ñëw amateur yi jépp Siteu. Siteu dafa na la te teel a dem stade dafa ceeb bi gis naa ceeb bi ñuy séddale ceeb bi nii. waaw non c'est boo gisee ñuy teel añ teel dem c'est xam nga stade bi soriwul te booy dañuy dox oto bi booy dañuy dox topp oto bi oto Siteu du daw day raam ba yegg moo tax foog nga teel a yegg pour heure bi pour nga bañ a tardé moo tax gi gars teel a génne añ bi quoi pour suñu préparation xam ne lépp lañ koy def si jàmm dem si jàmm non incha allah man wax dëgg yàlla saa yi dëgg rek.

di ko dalee suba tey nga xam dañoo jógee jàmm gën ñu ko jógee Fass Mbao ñu jógee Tëngéej ñu jógee Kër Mbaye Fall ba yëmbal dama leen ñaan maam ñu dox si jàmm dox si jàmm non violence bañ a tooñ kenn incha allahu rabi ñu bañ a tooñ kenn dem stade dox si jàmm macc kerem ñaan ñaalo yàlla may ñu dem quoi may ñaan booy bu si kenn tooñ bu jël kenn jël yëfu jàmbur bu kenn def dara nañ dem si jàmm rek incha wala walaay ñaan quoi yàlla rafet na wax gi rafet na jaajëfate nee mi ngi ñaan supporter def non violence sanku ba set solo rafet wow, nga lu neex dem stade Wow. dem ma ci keneen waaw taxal ma ñaag ci suma ñaag waaw kon ni ngeen gisee noonu mbokk internet yi ñu ngi